juróom fukk ak juróom benn yonent yàlla Yeremi asalaamaaleykum mbokki déglukat yi ñu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faw am nanu mbégte ci leenu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci émission bi weesu déggoon nanu ni yonent yàlla esayi binde woon lu bari ci mbirum almasi bi naroon na ñëw juróom ñaari téeméeri at lu jiitu juddug almasi bi yàlla soloon na ci xelum esayi ni musalkatu bàkkaarkat yi naroon a jóge ci jataayu yàlla juddu ci janq dundu dund gu sell te def ay kéemaan yu kenn deful wante esayi yëgle woon na it ni almasi bi naroon a tuure deretam ngir fay bàkkaar mel ni xar mu ñuy rend ji te bu saraxam mate dina noot dee dekki ca bàmmeel ba indi dundu gudul jeex ci képp ku ko gëm tey ji nag danu fas yéene jëm kanam ci nettali yonent yi ba gis beneen yonent bu tedd bu doon dund daanaka téeméeri at gannaaw esayi yonent boobu moo di jeremi ni nu ko gise woon ba noppi xeetu israel nekkatul woon wenn xeet rekk ñaari xeet la mujjoon na doon di israel ak yuda te fi nu tollu léegi ci mbind yonenti war ngeen xam ne nguuru israel ga nekkoon ca bëj gànnaaru réew ma tas na yàlla tàbbal na waa israel ci seeni loxoy noon ndaxte gëmuñu woon waxi yonent yi ba tuub seeni bàkkaar kon ci xeeti yawut yi yuda rekk a ci desoon yuda mooy xeet wi nekk ci bët saalum te péeyam moo doon yerusalem fa kër yàlla ga suleymaan tabax nekkoon yonent yàlla yeremi nag yawut la bu juddoo ci dëkk bu ndaw boo xam ne digganteem ak yerusalem mat na juróomi kilomètre baayu yeremi sëriñ la woon ca kër yàlla ga nekkoon ca yerusalem ci jamono jooju lu ëpp ci yawut yi dëkkoon yerusalem fonk nañu seen sàrt diine waaye faalewuñu kàdduk yàlla aji sax ji wante yeremi moom nit ku fonkoon kàdduk yàlla la te déggal ko te mu ngi doon séentu jamono ji yàlla wara wàcce almasi bi ci àddina léegi nag nanu dugg ci téereb yeremi ba gis ni ko yàlla woowe mu nekk yonentam ci sar benn yeremi bind na ne kàddug aji sax ji wàcc ci man naan laata ma lay muul ci sa biiru ndey xam naa la ber la laata ngay juddu fal la yonent ci xeet yi noonu ma tontu cey borom bi aji sax ji man de duma wax ndax xale la waaye aji sax ji ne ma bul ne xale la ndaxte dinga dem ci ñépp ñi ma lay yebal wax leen lépp li ma la digal bu leen ragal ndax maa ngi ànd ak yow di la xetali lii la sax ji wax gannaaw loolu aji sax ji tàllal loxoom laal sama gémmiñ na ma def naa sama kàddu ci sa gémmiñ déglul fal naa la tey ci xeet yi ak ci nguur yi ngir ngay buddi ak a jellar bi ngay toj ak a tas ngay tabax ak a jëmbat noonu la yàlla woowe jeremi mu nekk yonentam yàlla fal na ko ngir mu dem ci ay mbokki yawutam xamal leen ni leen yàlla fasoon yéene ate suñu tuubul seeni bàkkaar te waññiku ci yàlla aji sax ji ak kàddoom gu sell gi ci lu wér sasu yeremi sasu diis te jafela la woon ndaxte yawut yi bëgguñu kenn wax leen ne seeni jëfi diine neexul yàlla wante diirub ñaar fukki at ak ñett yonent yàlla yeremi doon na waare ci yerusalem ak réewum yuda naan nangeen xam bu wóor ne su ngeen tuubul seeni bàkkaar ba déggal kàddug aji sax ci yàlla dina bàyyi kaaraange xeetu babilon ñëw dugg ci yerusalem toj dëkk bi te lakk ko moom ak kër yàlla gi te dinañu leen yóbbu ci réew mu sore ngeen nekk seeni jaam moom la yeremi yëgaloon yawut yi dëkk yuda nanu jukki tuuti ci wax ji yeremi arto woon ay mbokki yawutam nu ngi jàng ci téereb yeremi sar juróom ñaar mbind mi nee lii mooy kàddu gi aji sax ji wàcce ci yeremi naan taxawal ca buntu kër aji sax ji te sàbbal leen kàddu gi yéen ñépp waa yuda yéen ñiy jaar ci bunt yi ngir màggal aji sax ji déglu leen kàddug aji sax ji aji sax ji mën lépp di yàllay israel nee na jubal leen seeni yoon tey rafetal seeni jëf kon ma bàyyi leen ci béréb bii bu def seen yaakaar ci waxi neen naan fii mooy kër aji sax ji fii mooy kër aji sax ji yàlla dunu àtte mukk ndaxte fii mooy kër aji sax ji waaye su ngeen déggoo ci jubal seeni yoon tey rafetal seeni jëf di àtte dëgg diggante nit ak moroomam te bañ a noot doxandéem jirim jigéen ji jëkkëram faatu su ngeen tuurul deretu ku tooñul mbaate màggal yeneeni yàlla bay lor seeni bopp noonu dinaa leen bàyyi ci bërëb bi ci réew mi ma jox seeni maam ngeen dëkk fi sët ba ciy sëtaat waaye yéen a ngi def seen yaakaar ci waxi neen yi dul jariñ dara lan nag ngeen bëgg sàcc boom njaaloo lekk ngiiñ topp yeneeni yàlla yi ngeen mësula xam ba noppi ngeen ñëw fi sama kanam ci kër gi ëmb sama turnaan mucc nanu daldi xuusati ci seeni ñaawteef noonu la yeremi doon yedde yawut yi doon mbubboo xam-xamu yàlla te seeni jëf dëppowul ak li ñuy woote noonu ci saar fukk ak juróom ñaar yeremi teg ci ne aji sax ji nee na ku wóolu doom aadama yaa torox ki wekku ci nit kese te xolam sore aji sax ji ndaxte xolu nit dafa njublan ci kaw lépp te bon ba raw xel ku ko mën a xam man aji sax ji maay natt xol di seetlu xel ngir delloo ku nekk jikkoom fay ko li jëfam meññ noonu la yeremi arto woon waa yuda di leen dénkaat ne su ngeen tuubul seeni bàkkaar te waññu ko ci yàlla kaaraangeeg babilon dinañu tas dëkku yerusalem ak kër yàlla gi te yéen di ngeen nekk seeni jaam yéen ñiy déglu lu ngeen xalaat ci loolu ndax waa yuda fonkoon nañu kàddu gi leen aji sax ji wax jaarale ko ci gémmiñu yeremi lu ëpp ci ñoom fonkuñu ko woon sëriñ si sax gëmuñu woon wax yeremi yooyu ndaxte bi sëriñ si déggee li mu waxoon dañu ko daldi jàpp dóor ko ay yar jëng ay tànkam bésub lëmm sëriñ si mëñu woon a gëm ne yàlla dina bàyyi seeni noon di waa babilon ñu dugg ci yerusalem yàq dëkk bi ak kër yàlla gi suleymaan tabaxoon ci seen xalaat loolu mënul woon a am mukk moo taxoon ñu mere yeremi ci li mu yëgle woon te bind ko ci mbirum yàquk yerusalem war ngeen xam it ne du mbooloo ma ak sëriñ sa rekk ñoo bañoon a nangu wax yonent yàlla yeremi waaye buuru yuda it dafa ko bañoon ndaxte bi buur bi jàngee téere bi yeremi bindoon dafa daldi mer lool dagg téereb yeremi ak paaka sànni ko ci taal ba ca ëtt ba ba téere bépp lakk noonu la buuru yuda jëfe woon tuubul woon ay baakaaram te nanguwul woon kàdduk aji sax ji waaw buur bi dafa lakkoon téereb yeremi waaye munul woon fanq dogalu yàlla noonu yàlla dafa xiraat yeremi mu bindaat kàddoom yépp ci beneen téere su ngeen gëstoo ci téereb di ngeen gis ni buuru yuda ak sëriñ si ak waa réew ma fitnaale yeremi lool ba tëj ko ay yooni yoon amoon na benn yoon sax ñu dugal yeremi ci kàmb gu xóot du ko am ban bu tooy waaye yàlla xetalise ko yónnee ko benn waa afrik mu génnee ko kàmb ga leneen li ngeen war a xam mooy li ñu ëpp ci yawut yi bañoon a déglu waxi yonent yàlla yeremi taxul woon ñu bañ déglu kenn am na ñu ñu doon déglu tànnoon nañu déglu yonent yu dul dëgg ya waaw mbir mi ci jamono jooju dafa amoon nit ñoo xam ne dañu doon teg seen bopp ay yonenti yàlla waaye ci lu wóor ay naafeq rekk lañu woon di ay yonent yu dul dëgg ndaxte seen kàddu jógewul woon ci yàlla ko noonu bi yeremi di waare àtteb yàlla bi naroon a dal ci kaw yerusalem yonent yu dul dëgg yooyu ñoom ñu ngi doon wax waa yuda ne déedéet déedéet musiba yi yeremi di yégle du am babilon mënul tas yerusalem kenn mënul toj kër yàlla gi du ngeen gis musiba jàmm rekk ngeen di am waaye yeremi waxoon na yawut yépp naan ci làmmiñu aji sax ji bu leen déglu wax yonent yi yégle ni na xewi dañu leen di dugal ci mbir yi neen peeñu yi ñu leen di nettali ci seen xol rekk la jóge waaye jógewuñu ci aji sax ji yónniwuma yonent yooyu te daw nañu waxuma ak ñoom te yëgle nañu li nara xewi suñu teewee woon sama jetaay kon dinañu dégtal samay kàddu sama mbooloo te wàññi leen ci yoon wu bon wi ñu topp noonu la yeremi arto woon yawut yi ngir ñu moytu waxi ñi waare lu dul dëgg waaye ndeysaan lu ëpp ci waa yuda faale wuñu artub yonent yàlla yeremi wante ñu jàpp ci waxi yonent yu dul dëgg yi waaye ca mujj ga buur bi ak sëriñ si ak mbooloo ma ak yonent yu dul dëgg yi xamoon nañu kan moo yoroon kàddug yàlla giy dëgg ndaxte ca mujj ga yàlla amaloon na lépp li yeremi yëgle woon mu jëm ci yàquk yerusalem déglu leen li mbind mi wax mu ne ca juróom ñeenteelu atu nguuru sedekiyas buuru réewu yuda nebukadnaser buuru babilon ñëw ak kaaraangeem gépp songu yerusalem mu tonal dëkk ba tabax ay tata ci li ko wër gaw dëkk ba te ca juróom ñeenteelu fanu weer wa xiif ba tar lool ci biir dëkk ba ba mburu amul ngir waa réew ma booba nag ñu sam miiri dëkk bi ba yet ci bunt noonu xarekat yi jàpp buuru yuda indi ko fa kanam buuru babilon mu tëral àtte ci moom naka noonu ñu rendi doomi buuru yuda fa kanamam ba noppi luqi ay bëtam yeew ko ak jéngi xànjar yóbbu ko babilon noonu nebukadnesar buuru babilon ak ay xarekatam lakk kër aji sax ji ak kër buur ak kër yerusalem yépp maanaam kër yi fa am solo yépp te daaneel miir yi wër yerusalem nebusaradan kilifak wattukat yi jàpp jaam mbooloo ma des ca dëkk ba ñoom ak ñi jébbaloon seen bopp buur babilon ak la des ca waa réew ma waaye nag kilifa wattukat ya bàyyi fa ñenn ca néew doole yi ñuy liggéey tooli reseñ yi ak di bay noonu ñu yóbbu waa yuda ñu nekk jaam fu sore réew ma kon gis nanu ni yàlla amale woon lépp li mu waxoon jaarale ko ci gémmiñu yeremi yonentam léegi yawut yépp xamoon nañu bu wóor ne waxu yonent yàlla yëremi moo doon kàddu dëgg gi wante seen xamxam boobu du leen jëriñ lu bare ndaxte léegi ay jaam lañu woon ci loxoy xarekati babilon nan lanu mën a jeexale sunu njàngum tey mi nag xanaa ni ci bésub àtte ba doomi adama yépp dinañu mujj xam lan mooy dëgg gi ak lan mooy fen waaye li yàlla bëgg mooy nga ràññee luy dëgg gi ak lu dul dëgg gi léegi ndaxte ca bésu penc ba xam dëgg gi nga xeeboon ci sa dund ci kaw suuf du la jëriñ dara bu boobaa réccu dina fekk jëf wees ndaxte fekk na nga sànku ci sa biir bàkkaar loolu moo tax kàddug yàlla wax ne tey ji la jamono ju jekk ji tey la bésu mucc gi samay soppe bu leen gëm xel mu nekk waaye nattu leen xel yi ba xam ndax ci yàlla lañu jóge wala déet ndaxte nafeq yu bari yu mbubboo turu yonent jóg nañu tasaaroo ci àddina si amen kon nag mbokki déglukat yi fii lañu war a yem tey ci njàng mi di ñëw ndegam neex na yàlla dinañu gis li xewoon ak yawut ya ñu yóbbu woon babilon su fekkee ne am ngeen lu ngeen di laaj ci li nu jàng tey ngeen bindunu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li yonent yàlla Yeremi bind bi mu naan yàlla aji sax ji nee di ngeen ma wut te gis ma bu ci seen xol bépp àndee